moo tax suñ tubaa ne walan bi yaa ñu ñu solo ñi wa kullul muslimin ak bépp yonentu maan boole seen te àlla moo jàngee nañ mi ni ci yonent bi adabala ibada tegginug jaamu yàlla te ñoom ñoo fi jëkk yonent bi teggi tegginug jaamu yàlla gañ doon jaamee yàlla nee na ci yonent bi lañ ko jàngee mu ne faxaasa làq na moom yonent bi maa lëf lu màgg loo xam ne maa ay kéemaan yu màgg yoo xam ne maa loo xam ne xaasa làq na ko moom yonent bi min sirin ci ay secret yoo xam ne suñu borom moo ko déey xam waaye nag foofu la ko suñu borom woowee ba noppi jox ko julli juróom nga xam ne julli juróom dafa fooree noo xam ne moo tax kenn doyut ko ci joxul ko jibril mu indi ko joxul keneen mu indi ko waaye dafa woo yonent yi ba mu ñëw mu jox ko ko juróom fukki julli waaye nag ci ndigal ak yonent yàlla Moussa Moussa di ko wàññilu di ko wàññilu yonent bi da dem ba mu des juróom yonent bi salaay salaam dem ngir kersa ga ci lañ waxee ne nag képp koo xam ne julli na bët bët bu set juróomi waxtu yi maanaam dañ lay bindal payo rek ku julli juróom fukki julli moo tax mu ne fa xaasa làq na maa loo xam ne xaasa làq na ko min sirin ci ay mbóot ci ay secret te foofee suñu borom rañaanalee woon rañaanalee woon ko yuqasu boo xam ne jagle la bii ci moom loo xam ne moom kenn képp képp moo ko am moo tax mu ne waqat danaa jege na moom yonente bi jege na suñu borom fatta dalaa ba dolleeku ak jege bil mu naa jaati ci diyante ak sunu borom nga xam ne mu ngi génne nag léegi summa danaa fatta dalaa fa kaana xaaba qawsayni alxuraan nee na jege na boromam ba dolli ko ak jege mooy maanaam dara doxut seen diggante waaw sans intermédiaire dara doxutut seen diggante jege na ba dolli ko ak jege fa kaana xaaba qawsayni léegi mu misaal jeggi nag mu ngi mel ne xala ak xocc mu ngi mel ne satala ak ngëbu gi noonu la yonent bi jegee ak sunu borom waaye nag kii nga xam ne mooy Abdullahi ibnu Abbas laajoon nañ ko. ndax yonent bi gis na borom mu ne waaw te moom mooy fóora xeet yi bi mu juddoo lañ ko yët yonent bi yonent bi ñaanal ko ne ko yàlla kii tëfli ci gémmiñam gi yàlla na ko dégguloo taawil alxuraan te yonent bi sax laajoon nañ ko ndax gis nga sa borom ci rañaan ko mu ne inni raahu bi xal bi gis naa ko sama biir xol kon xol mooy gis yonent bi nee gis na borom moo tax mu ne fa xaasa làq na maa loo xam ne xaasa làq na ko min sirin ci ay mbóot ak i secret yu yoo xam ne jagle la bii ci moom keneen amul ku dul moom moo tax mu ne waqat danaa jege na sax fattadalaa boo dolleeku ak jege bil mun a jaar ci diggante ak borom di waqante ak boromam nga xam ne dañuy sosante bara doxul seen diggante laqad raa min ayati rabbil kubra suñu borom wan na ko kaawteef yi gën a màgg te li gën a yem mooy yonent bi muy rañaan xoolu fenn te tooli sarde yu mu romb waaye gis nga alxuraan nu mu ko jëkkat taggee maasaaxal basuro mataqa moom de bët bi ba ko yàlla di rañaane xoolu nu mu xool mukk sama classe gi nag tey boo leen doon yóbbu fenn rek bala ñuy yegg dañ xool àll bi yëpp yonent bi nag xoolul fenn fu dul kanam waqasoo moom yàlla jagleel na ko bi la loo xam ne ca rañaan ga jagleel na ko loo xam ne lam yu sa mostu cëru xattu mukk bii ca loole yàlla jagleel ko te walay sa cëru mukk bii ca loole yàlla jagleel ko ko maadin moo xam ñi fi wëy la wala ati wala ñuy dikk nee bi ko yàlla rañaanalee jox na ko fa loo xam ne jagle la loo xam ne cër la ci yonent bi mu làq ko loo xam ne kenn mosul koo làq te kenn dootul ko mos a làq moo xam ci lu paase la mosuñ koo làq moo xam ci luy dikk la kenn mosu koo làq walay su yox saa deesul làq mooy deesul cëru bii ca loolee yàlla jagleel ko ko te mooy carañaan nga maadin moo xam ñi fi woy la wala at wala ñuy dikk ñuy dikk ak ñi woy yépp ci li ko yàlla defal carañaan nga dootu ko defal kenn te du ko defal kenn mu ne fa aaba fii xablal faj al fajri yuhlimu ma qad kaana bi sarxi saanafin aw isbaati nee na fa aaba ñibsi na léegi nag wax na la rañaan gi léegi nag ñibsi gi ñibsi gi ci lay ñëw mu ne fa aaba ñibsi na mooy dellu si na moom nga dégg ca bu mu ne xad aaba lay laa xad saba nay laa xad faaqa fay laa min sil baqaa'i moom kat ñëw na indaale may yoo xam ne day walangaan day sotteeku may yoo xam ne kawe nañ waame wuy sotteeku te mën ko jëlee ci yàlla muy borom def ka xat jaa bi may ri li ahlil xayri indi na loo xam ne la muy ay xéewal waaye ñeel ñi ko gëm te mooy ahlul xayri mooy ñi nga xam ne ñooy abubakar ni siddiq ak ñu mel ni moom waaye wa baa bi day ri ahlu saqaayi bi mu ñëw see dafa indaale lor ñeel ñi nga mooy waat mooy ñi nga xam ne dañoo texee di mooy bi mu rañaanee ba ñëw ko doon weddi ñu demee ak ñu mel ni moom moo tax Sëñ Tuubaa ne fa aaba ñib si na dellu si na fii léegi ci biir guddi xablal faji lu jiitu fajar nag ci la ci la dellu si te yuux li mu xam na maa la nga xam ne xat kaana nekkoon na bi sax yi ci yoon yi comme yoonu bëccëg rek na muy leeree bi muy rañaan noonu la ko yàlla defaloon rañaan gi mu mel noonu nga xam ne alburaax fu mu xool ay bëtam day leer naññ te fu mu xool ay bëtam rek foofu lay teg ay tànkam waxoon naa leen dafa gaaw ba nga xam ne kéemaan la fu teg ay bëtam rek foofu lay tànk yi di yegg te fu may xool bëtam day fëri fu may xool bëtam day fëri moo tax mu ne yuux mu xam na ñib si na laataa fajar mu ngi mel ni tey mu rañaan trois saro quatre heures saro mu ñëw noonu rek la mel boo ko doon misaal mu ne delsi na ci biir guddi njëkk fajar waaye nag yuux mu xam na maa la nga xam ne xat kaana nekk na bi sax ci yoon yi saa na fi di borom ak dàq aw isbaatin ak saxal nga xam ne am na ñoo xam ne bi mu ñëwee maanaam dañoo daq ne maanaam rañaan gi amul am ñoo xam ne nag bi mu ñëwee dañ koo saxal dañ koo saxal ñi nga xam ne dañoo dàq ne rañaan gi amul mooy Abu Jaxlin ak ay mbokkam ñu mel ni moom am na ñoo xam ne bi yonent bi rañaane ba mu ñëwee bi mu leen ko waxee sax ñoom ree leen jàpp te pourtant gëmoon nañ de waaye dañoo muur tas far génn ci diini ji ndax dañoo jàpp ne yonent waxul dëgg am ñoo xam ne ko demee ne Abu Bakrin nag moom mooy kii ko njëkk a li moo tax Abu Bakrin ci la ko yonent bi tuddee Abu Bakrin Siddiqu waaye tuddutoon Abu Bakrin Siddiqu moo tax mu ne saa nafin di borom ak dàq aw isbaatin ak saxal bi muy ñëw xam na lu nekk ci yoon yépp waaw waaye nag di borom ak dàq ak saxal te mooy lépp lu war a sax ak lu war a sax ci diini ji saxal na ko waaye lépp loo xam ne suñu borom dàq na ko ci diini ji dàq na ko ndax lépp suñu borom mu ngi ko ko joxee foofu waaye yombalal ko xeetam bi ci yoo xam ne ay tiis loon ci yeneen xeet yu ñu fi jiitu woon suñu borom yombalal ko loolu bokk na ci julli nii rek nga xam ne xeetu njëkk yi ak ak yi bokkuñu ak ko yàlla jàppalal ci xeetam yépp muy buñ fàtte wala ñu juum wala yu mel yooyu yëpp suñu borom du leen ko jàppee moo tax mu ne yox mu xam na maa la nga xam ne xarkaane nekk na bi saa ci yoon saa na fi di borom ak dàq aw isbaatin ak saxal bi ne tilkal xawaariku yooyu la baax mu yooyu la mu ci saat mu ne maasaalal mos tu dañ mukk mukk tu ay yi duhoo di ko dëgëral xam nga ab yonent li koy dëgëral ba nit ñi man koo gëm mooy ay moxtisaat xam nga rañaan gi ñun namoon a gëm yëpp ak ñu waroon a gëm ñëpp yonent bi rañaane bu ñëw bi mu leen ko waxee dénk-dénk bu sikk sàkkuñu xam nañ ni lii lu am la na ko moo mu ne ay moxtisaatam yi nag mooy li ko dëgëral ba nga xamee ne ñi nar a gëm gëm nañ ko topp ko te duñ déng-déng duñ weddi duñ murtat te is ngir moom yonent bi lam yesal dañu mukk mukk xilloo xaritam ba yaati di ko indil bi aayaati ci ay lay alxuraan léegi nag jibril da koy indi sax suur ay lay alquran ndax jibril la jàppoon muy xarit moo tax toog na ñeent fukki fan jibril ñëwut yonent bi ne ah man de sama xarit bi xam fu mu nekk sama xarit bi moo mën a bàyyi mbokk moo mën a bàyyi xaritam toog ay fan rek jibril ñëw na ko wama natta nasulu ila bi ami rabbika lahu wama bayna aydina wama xalfana wama bayna salik wama kaan rabbika nasiyan ñun duñu wàcc di indi ay wax yi lu mooy ndigalug sa borom ndax suñ borom moo xam lu nekk suñ kanam ak suñ gannaaw waaye nag wama kaana rabbuka nasiyan sa borom moom fàttuwut la tabaarikalla maa waddaxaka rabbuka wama xalaa sa borom bàyyiwut la bañut la tabaarikalla mu ne kon yooyu la xar dañu mukk di ko dëgëral muy moo gisaat yam daan feeñal da ko doon dëgëral ngir lan moo saat bu ne sunu borom da koy boolente ab yonentu ngir mu dëgëral ko waaw ngir ñi xam ne kii yàlla ko yónni lii muy def yàlla ko ko defloo moo tax mu ne is ngir moom yónnent bi biim rañaane ba ñëw itam la may sal dañu mukk xilloo xaritam ba yaati di ko indi nag ba ayaati ci ay laay alquran léegi ne laay alquran yi commencé di wàcc mel ni tulleeg màlli rawatina subhaanallati asra bi abdi leelan nga xam ne alquran moo ko yaxal ne moom a rañaan gi lu ama am la ndax ko noonu ñëpp dañ koy weddi mu ne xataa ataa ba mu dikkee bi kitaabin ci téere boo xam ne un xaji saa lottal na albulaxaa wooy elawkaa ñëpp al bulaxa mooy ñi nga xam ne dañoo jot dañoo wax ba bu ñu waxee seen wax dalay yéem nga xam ne yàlla wax na leen fukk fukk saar manuñ ko am yaquluuna taraahu qul faatu bi asri suurin misli muftariyaatin gaa yi manuñ ko mu wàll leen ci suuratul baqara wa in kuntum fi raybin mimma nasalna ala abdina faatu bi suuratin min misli indi leen rek wenn saar képp wu mel ni inaa aataynaakal kawsara waaye kenn manu ko ci nga xam ne laay jooju dafa bokk ci injaasul alquran mooy day loo yéeféet ñi mooy manuñ dara lu xeetu alquran mel na musalimatul kasaab moo fi nekkoon di tooñ naan alquran nii maa ngi génne wataa inaati tax naan tabarika la ba olamaawu balaax yi sax ko ñaawal naan maa ngi génne seen mbay mii ngeen di mbay dana ñor tabarika jàpp woon naa saati di yàq rek ay nga suñu borom toroxal na ko aw bakrin sadiq moo mooy ko rey kon loolu yëpp dafa mat a bàyyi xel alquran téere la boo xam ne kenn ku nekk da ko war a fonk moo tax suñu borom ne bu fekkee man leen indi aw saar wu mel ni inaa taagal kawsara fa in lam tafaaloo walan tafaaloo bu ngeen ko man dootu leen ko man mukk kon nag fattaqoo naara lati waquudahaa naasu wal hijaara kon nag ragal leen safara si nga xam ne bu ëllëg yoomal xamee matt ma mooy nit ñi ak xërëm yi ñu doon jaam moo tax mu ne xataa ataa moom jibril jibril ba mu indi nag ti ba mu dikkee bi kitaabin ci téere boo xam ne maanaam ba téere bi mat daal jibril di ko indil ay laay alquran di ko ba téere bi mat téere boo xam ne léegi nag un ci saa lottuloo na albulaxaa way elokaani wakkala lottal na fa xan nit lii walis def lu mel ni moom ñan ahlul fasaxati ñooñ fasaxa ñëpp ñi nga xam ne dañoo fasaxa ba nga xam ne bu ñu waxee rek da nga yéewu waaye di dégg arab dégg lu ne nee ne lott nañ ci alxuraan buñ ko bëggoon a jéem sax duñ ko man wakkala lott na xan nit lii walis indi lu mel ni moom kemam ahlul fasaxati ñooñ fasaxa ñooñ fasaxa ñëpp buñ dajee woon tikk seen xalima seen daar mën nañu indi lu mel ni alxuraan léegi nag kon mu ñëw di tagg alquran mu ne akrim kawtéef ak tedd nga bii moom alquran min kitaabin téere la boo xam ne xat safa saafara na xelalam samay rag ràgg mboolem samay tawat mboolem samay jàngoro mboolem lu may luy dal ci xolub nit ki ak i gàkk-gàkk ak widdi yàlla ak xelaat lu dul yàlla loolu yëpp xëy ci feebar la nee na alquran moo ko jëlee ci man mu ne yéen naa kawtéef ak tedd nga waaye ci téere boo xam ne moo saafara samay mboolem ràgg-ràgg waaye téere boo xam ne fa an xasa xettali na ak saxba saxaaba yonent bi turan mboolem seen min xabaabaati ñi bàyyi ko ci ak riir riiru ak mbewte maanaam nee ne saxaaba yi alquran moo leen ci xettali alquran lañ jàng xam fu ñuy teg seen tànk alquran lañ xam ne fii mooy yoonu jub bi ndax ku dandil mu taxi na alquran lañ jàng xam ne fii mooy yoonu dëng wi léegi nag ñi bàyyi yoonu dëng wi topp yoonu jub bi moo tax fa an xasa xettali na moom alquran a saxba saxaaba yi turan mboolem seen min xabaabaati ñi bàyyi ci ak riir ak mbewte muy commencé nag di tagg alquran mu ne waxu moom alquran alkitaabu mooy téere ba xam nga alquran dafa bokk ci turam yi mul kitaab muy kitaab xam nga diggee alif laam mim saalikal kitaab boo bële téere mu mel ni téere bi dara sëri loolu maanaam isaaratu lil box di la maanaam loolu maanaam boo koy def mooy da nga koo jubloo màggal boo bële téere te mu ngi nii yaa ngi koy firi mu ne waxu moom alkitaab mooy téere bi allati téere bi nga xam ne laaray ba déet xeeti sikk fii di nekk ci biir téere bi xuddan jummi njub la li kulli man ñeel képp koo xam ne yettaxi dana ragal naaram safara bi taati ci jaamu borom kon kuy jaamu sa borom rek danga ngaa ragal safara mu ne alquran nag mooy téere bi nga xam ne amul benn sikk sàkk bu ci nekk kenn du ko sikk alif laam mim sal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin laay jooju rek la delloo si fii mu ne mooy téere bi nga xam ne amul sikk njub la ñeel way ragal yàlla képp koo xam ne rek topp nga ki yoon te doo ko jàdd waaye ànd ko waa ragal yàlla foo toll di toroxlul sa borom mu benn kon teggi nga yoon safara léegi nag topp nga yoonu aljana di ne loolu nag fokk nit ki bala koy am mu takku alxuraan wax na ci masaaliku sax na saa yoo xëy war ngay jàng ñetti isib wala benn isib sax nga jàng ko wala boo xëyee nii sax fóon ko waaye ëpp na ñàkk jàng tong tong ko nee bu ko tong mooy teg ko nii rek bañ koo jàng tey mu ne li kulli man njub la li kulli man ñeel képp koo xam ne yitaxee dana ragal naaran safara waaw képp kuy ragal safara tëqul alquran ci safara waaye nag bi taati ci topp sa borom mu ne waxu moom alhuda mooy njub ga wasiraata ak yoon wa al mustaqimu way aji jub lanaa ñoon la mu ne ñun jullit ñëpp buñ bëgg a tegee ci yoon siraatal mustaqim benn yoon la mooy alquran bi fa benn yoon la muy alquran te mooy bil orwatil wusqa lan fi saama laha walaaw saman alima alquran mooy bungu dëgg gi ku ci mooy aljana nga jëm te doon ko wax ci kanam mu ne woo ko moom alfu daa njub mooy njub ga te benn njub rek la wa siraatu mooy yoon wa kuy wut yoon jàppal alquran almustaqimu way aji jub lanaa ñeelu ñu julli ji fokkul la man képp koo xam ne nag xaafoo wan na ko ganaaw wan na ko ganaaw nee na laaqa kookee dana daje asaqaawate texee bi alquran kon ku ko dul jàng lu muy tegtara mooy ku texee di ndax ñaar koo gis nit ñi fonk ko jox ko cër mooy dafa fonkoon alxuraan boo limee suñ mag ñu baax ñi kenn ku ci nekk da ngaa fonkoon alxuraan mu ne ku woon gannaaw alxuraan nag maanaam fokk nga dajeeg li nga xam ne mooy ak texee mu ne waxoo moom alxuraan saafara la moom alxuraan aji saafara la li ahli daa i ñeel ñooñ jàngoro mboolem ñi am jàngoro moo xam jàngoro xol la wala jàngoro bu widdi yàlla la mboolem jàngoro bu man a nekk sa yaram rek nee na boo taxoo alxuraan jàngoro yëpp suñu borom saafara moo xam jàngoro xam-xam la moo xam ku mar xam-xam la wala ku mar xam yàlla la wala ku mar xam yonent bi fu yàlla teg la wala ku mar xam jaar-jaar yonent yi la nee na boo taxoo alxuraan alxuraan saafara la ci mar wu wa huwa moom asifa aji saafara la li ahli daa i ñeel ñooñ jàngoro kullihi moo ñoom ñëpp da leen di saafara ñi am jàngoro ñëpp bu ñëwee taxoo alxuraan alxuraan saafara leen jas bul xulóob lam lan la waxoon huwa sifa min kulli daa min kulli daa bul bàyyi dara bépp jàngoro da koy saafara waaye nag li man xale yi ihtamada ku sukkandiku ci moom moom lay saafara wa man abbaahu turi daa saxaratin wa nadami ku bañ nag bañ gi te mooy ñàkk koo jàng te amul benn suñu borom dana la dàq ngay borom ak perte ak réccu foo mën a jëm kon loolu dafa mat a bàyyi xel mu ne yun ji dana muccal sawil xaqli borom xel ya min xay ñi bàyyi ci riir wa afaati ak ay gàkk-gàkk nee na ñi nga xam ne dañoo am xel buñ taxoo alquran alquran nañ leen muccal ci riir ndax ci yoonu jub rek ci la ñuy tegee waaye alquran dañ leen muccee muccee ci lii nga xam ne mooy ak mbewte riir ak mbewte yëpp dañ leen ci dañ leen ci génn sëril leen ko waaye lépp luy gàkk-gàkk nga xam ne bokkul ci diini ji loolu alquran dañ leen ci génn moo tax ma ne yun ji dana muccal soo wenaqali borom xel yi min xay ni bàyyi ko ci ak mbewte te muy ak réer wa afaati ak ay kàkk-kàkk yal nañu yàlla defal dégg ak toog walanbiyaa wa kullul mursalina maxan taallamu minhu aadaabal ibadaati mbokk yi mu mel ni démb sëñ Tuubaa jotoon na leen di wax rañaan ak yonent bi lu ama am la waaye ci ruu gi mbokk yi ñoo ngi ak yéen ci alxuraan ci jëmmi Ahmad Souleymane waaye nag doon xasida gu neex xam ngeen ni ko suñ bi tàmbalee dëdd loola adduna dëdmal loola alaxira waaye di la wan fooy jaar ba yegg ci yàlla fooy jaar ba jot ci wóorul ay ni yooyu ñu doon nettali ci njëlbeen ga fii ngay jaar wax na la fi ngay jaar yépp tabarkalla ba man kee am léegi nag ñi toll ci alxuraan sëñ bi di ko tagg waaye mu doon téere boo xam ne kenn mëntu dugg aljana te jàppoo ci alxuraan même suñ mag ñi tey koo gis mu am cër ci lislaam rek boo ko xoolee kii jànkatu alxuraan la bu ko defee nag yow nga nekk ci daa jàngoo alxuraan ba mokkal dem ca marché bi rek bàyyi alxuraan ba ngay dee ba ba ngay dee alxuraan maanaam kenn ku nekk rawatina ku ko mokkal waroo waroo maanaam di gëj ci moom suñ tubaab ne doonte sax da ngay xëy fóon ko rek baax na da nga ci am tiyaaba wala nga koy parfois rek da nga am tiyaaba waaye léegi da ngay jàng alxuraan ba nëppi léegi bu xasee mokk rek jeex na teg na ko ba bu muy faat nag te alxuraan day ràmm comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ci kuréel goo xam ne alxuraan moo leen ràmmal boppam am na ci kuréel goo xam ne alxuraan moo leen ràmmal boppam moo tax suñu tubaab ñëw di la di tagg alxuraan di ware nag alxuraan mooy buum gi nga xam ne ku bëgg a dem ci yàlla ne dangaa bëgg a yegg bàyyi nga fi oto bi buum gi dagg na parce que yow yaa ngi bëgg a dem oto bi moo moo la mën a yóbbu nga man dem ci dugg dugg ci oto boo xam mënu lay yóbbu mooy bëggooy dem rek bëggooy dem moo tax suñ tubaab ne waman yëru képp koo xam ne dana sàkku wuslatan ak yegg lillahi ca yàlla mun sarifan mbir moom muy aji wan gannaaw mun sarifan mbir moom muy aji wëlbatiku xaan hu wëlis alxuraan kooku faqat ca dëgg-dëgg bu bu ko yëgee ak bu ko yëgul faataxoo rëcc na ko raw na ko xablul wisaalaati buum ak jokk ga la muy buum a jokk mooy buum gi nga waroon a jokk di ci tikk di ci tikk di ci tikk ba yegg ci yàlla léegi nag nga ne bëgg a yegg ci yàlla bàyyi fi alxuraan mooy tikkoo fenn kon mooy doo yegg rek Sëñ Tuubaa ne doo yegg képp kuy sàkk yegg ca yàlla te bàyyi alxuraan ngir bëgg a yegg ca yàlla nee na buum ak jot moom rëcc na la te ku tikkul ci buum nga doo yegg di waman yarum képp koo xam ne dana sàkk wuslatan ak yegg lillaahi ca yàlla mun sarifan mbir ba muy aji wëlbatiku an wëlis alxuraan kookee faqat faatu ko raw na ko xablul wisaalaat bu ma jokka cuy sëñ Tuubaa moo rafet wëy fahuwa moom de alquran ak sabilu mooy yoon wa benn yoon la de allati mooy yoon wi nga xam ne maa fii hi nekkut ci min xewa jin genn dëng-dëng genn ñan la genn dëng-dëng amut ci xoolee sëñ Tuubaa nu melelee alquran fii mu ne alquran moo yoon xam nga yoon nag xam nga yoon mooy lan mooy gis nga tali bi nu mu jubee boo ko toppee da ngay daw rek gis nga tali bi nu mu neexee sëñ Tuubaa nag boo bëgg a dem ci yàlla benn tëli rek la foofu ngay jaar muy alxuraan benn tëli rek ngay jaar beneen tëli boo jaar bu dul alxuraan rek mooy doo yegg da ngay dawal ba sa gaasuwaal jeex nga far alko boo bëggee sol gaasuwaal nag bëgg gaasuwaal ba yeggal la fa nga jëm mooy jaaral ci yoon wi di alxuraan mu ngi mel ni yow muy dox rek ci yoon wu jub woo xam ne amul benn dëng-dëng nga xam ne da ngay daw rek te benn oto baarewut la kenn taxawloo wut la alxuraan nag ku bëgg a dem ci yàlla mooy yoon woo xam ne amul dëng-dëng moo tax ma ne foofu wa moom azabilu mooy yoon wi alesi yoon wi nga xam ne maa fii déet di ci nekk mi ne ji genn dëng-dëng li man ñeel koo xam ne yasiru dana dox ilaa muhti jëm ci yàlla muy aji joxe ji à raqibaati xemam teef ya gis nga kon yoon la woo xam ne maanaam ñii dox jëm ci yàlla te bëgg yàlla jox leen ca lañ xemam mooy alxuraan rek lañ mën a jaar ba yàlla jox leen lañ xemam li man yasiru la wax ila muxti raqibaati ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla xemam aljana wala ay may yu nekk ca yàlla ñu ñu mënuñee dem fenn fenn ba am ci xemam teef yooyu lu dul ñu jaar ci alxuraan mi nga xam ne benn yoon la te amul dëng-dëng ku ko topp rek da nga yegg ci yàlla kon foofu moom asabilu mooy yoon wi àll ci wa nga xam ne maa fiihi déet di ci nekk min xew jin génn dëng-dëng li man yasiru yoon la woo xam ne ñeel kuy dox ila muxti jëm ci yàlla muy aji joxe ji arxibaati xemam teef léegi nag mu ñëw di la waxal alquran téere bi lu muy ngand ngand li ci nekk ak yàlla ni ko waxee ba noppi te noppal mboolem bindee fi mu ne amrun alquran yépp booy xool digle ci nekk amrun digle digle nag ku nekk xam na ko mooy nekk ci ñi la defal nangam ba noppi nag te sañoo koo bañ nga jaar ca loolu mooy digle amrun digle wanax ñun ak tere tere nag mooy ñu ne lii bu ko def te boo ko defee ay daan fekk la ca nga ne ko ñukket bàyyi ko fa te boo ko defee itam bu la ay daan tegewut fii ci adduna moom yàlla moom mooy borom baatin mooy borom lépp mi ngi lay gis bu yomal xeamee dana fayu ci turam wu nee na amrun digle la wa nax ak tere wa wax dun ak wa wax ak dëhël yow miñ digle nag yow miñ digal nga topp digle yi yow lañuy ñuy dëhël ca aljana ci ay xemem tef la nga xemem yépp boo demee yàlla du la nax mukk te li nga jëf yàlla da koy yokk payor ga waaye du ko wàññi mukk du jël sa yi tam di ko jox keneen nag kon amrun wa waxdun waaye nag wal waxee du ak tëkku maan mboole seen yi ñoo nekk ci alxuraan amrun wa waxdun ki toppi digli yi moo jot ci dali ya wa nahyun wal waidu ña ñuy tere ñoom la ñuy tëkku ci safara ndax fasakir bil qur'aani man ñi xafee di na nga waar ci alxuraan koo xam ne dana ragal sama tëkku mooy sama mbugal kon mooy dañ lay moytuloo ah diw kër yow boo jaaree fii fokk da nga lakk léegi nag xam nga xam ne boo fa jaaree nga lakk léegi nag nga bañ nga bañ fay jaar boo fa jaaree tëkku nañ la tëkk gi nag mooy mbugal rek boo fa bañ a jaar rek dem jaar ci weneen yoon woo xam ne mooy yoonu aljana kon nag mooy jaar nga ci yoona rek kon yow léegi looy séntu mooy dëhale suñu borom yi suñu borom la muy dëhale kon am amrun wa wahdun wa nahyun wal wa'iid suñ tubaab ko mën a wéy la moo tax mu ne amrun digle ci nekk wa nahyun ak tere wa wahdun akub dëhale ak dël wal waxidu ak tukku maan mboolem seen xat usbita ca dëgg-dëgg sax nañ fii ci biir téere bi yii ñoo sax ci biir téere bi ñeent yi mu la tuddal muy amrun wa nahyun wax waxdun wal waxidu nee na xat ca dëgg-dëgg usbita sax nañ fii ci biir téere bi téere bi lii rek la leneen lu ñëw rek day dugg seen biir mun a irsaadan ak jubal lil xayraati ñeel yiw ya nee na lii mooy sax ci téere bi jubal nit ki di ko gindi ba noppi jëmee ko ci yu baax yi jubal nit ki di ko gindi jëmee ko ci aljana ya jëmee ko ci yu baax yi jëmee ko ci yiw ya lii rek moo sax ci biir bi sëriñ tubaa nag na le faman yu dim képp koo xam ne daana sax wala koo xam ne sax na xas da wàcci laahi jublu jëmmi yàlla ja xidmatuhu jaaree ko nag di liggéeyal alquran fa innahu kookee di liggéeyal alquran zaw fa yéex saa xawees nay cëru bilaa tiyaati ca may suñ borom ya ci yàlla mu ne koo xam ne sax na dàkk amoo benn yitte amoo benn bëgg-bëgg lu dul jaamu sa borom rek jëm ci yàlla waaye nag yoon wi lay gën a gaawloo ak yoon wi ngay gaaw a yegge mooy di liggéeyal alxuraan ndax wawal kitaabu la ci man kaana xaadimahu sakkan loolu almu wal axmaal wu siiw nee na mooy téere boo xam ne képp ko sax dàkkati ko liggéeyal suñu borom dana seelal xam-xamam ba ak jëfam ja ak jikkoom ja neen na ku sax dàkk jublu jëmu yàlla ji waaye nag boole ci di liggéeyal alquran sëñ bi ñaari liggéey la amoon liggéeyal yonent bi ak liggéeyal alquran wa kaw nii xadimal aayi allim wa fahimi mu ne kookee nag fa innahu kookee jublu jëmm yàlla ji sax ca waaye nag jaare ci di liggéeyal alquran saw fa yum saa xawes nay cëru bila atiyaati ca may suñu borom ila sëriñ bi ne waman yakun fi jamiha dahri muhtasiman bihi fasalika min ahlil wilayaati <laughs> sëñ Tuubaa ne ne wilaaya doonuñ lu ñuy xëccoo de wilaaya de bu fekkee bëgg ko rek taxul alxuraan moom alxuraan day joxe wilaaya ndeke mu ne yëkkun képp koo xam ne nekk na man di aji mooy fii jëmee a dëxëri ci mboolem jamonoom yépp bii ci alxuraan mooy ci alxuraan nee na fasaali ko kookee min ahli wilaayati mu ngi bokk ci ñooñ wilaaya maanaam ñi am wilaaya dëgg-dëgg booy jàpp jàppal ki nitu alxuraan ndax nitu alxuraan yi ñoo gën gën ci kaw suuf xayrukum man taalama alqur'ana wa allamahu ki gën ci yonent bi nee na mooy ki jàng alquran waaye ba noppi di ko jàngale sëñ Tuubaa nee na koo xam ne jamonoom yëpp benn yitt rek la mooy mooy ci buum gi ndax fa innahu bil urwatil wusqa lan fi saama laha waxtasimoo bi hablillahi jamihan wala tafaraqoo boo ngoyee ci alquran ngooy nga ci buum yépp ma ne képp koo xam ne nag ngooy na ci jamonoom yi muy dund yëpp ci alquran nee na kookee mu ngi bokk ci ñi nga xam ne dañu am wilaya kon wilaya jëru xëccoo jëru woote jëru bëgg tëqul alquran rek sëñ Tuubaa ne boo tëqu alquran rek am wilaya booy tëqu alquran rek am wilaya ñëpp danañ la topp ñëpp danañ la bëgg te da ngay sopp nit ñi alquran moo tax gis nga boo tëqu moom dalay li ñuy wax makaarimul axlaax maanaam koo ko gisee rek ku fonk alquran la maanaam li ñuy wax makaarimul axlaax boo ko gëstoo ba gëstu ko alquran moo gindi bon bonam yëpp ràng ko jikkoo makaarimul axlaq waaw koo gisati rek mu am makaarimul axlaq jàppal na jànkata alquran la bàyyi na wax ja mu ne fa innahu moom alquran al xorwati muy buum al wusqaa gay aji dëgër mooy gi gën a dëgër fa mum si quoi képp koo xam ne mooy na ci mooy jàppandu na ca xaddan cu ëllëgee de yefu su dana tuuf mooy dana texe la dal mawlaa fa boromam bi jannaati ci aljana yi sunu borom ya kon ndeke ku bëgg aljana ndeke boo fi bàyyee alxuraan moom doo dugg aljana aljani lu ñuy bari bari lañuy neex neex ku dul jàng alxuraan ca ah waaw sëñ na buum gu dëgër ku ci jàpp bu yowmal xiyaamee da nga am ca aljana yu yàlla day dële aljana yu yàlla di dële nee na da nga ca am ak koo mën a doon dem ngoy nga ci alxuraan di ko jàng di ko settantal rek tabarkalla nee na da nga am ci aljana yi aljana yi nga xam ne yàlla moo ko moom waaye nag defewu ko dara dul ay jaamam ñi ko doon jaamu moo tax mu ne fa innahu moom alquran alxorwatu muy buum nga alwusqaa gi gën a dëgër fa mumsikuha képp ko xam ne jàppandu na ca xaddan cu ëllëgee yëfoosu dana tuufu la dal mawla fa boromam te mooy yàlla muy kilifa gi bi janaati ca aljana yi sunu borom yi tabaraka wa taala sëriñ tubaa ne waman yulaasibu képp koo xam ne tëqoo na ak moom fii duniyaahu fii ci biit adduna jaada dana may moom yàlla loxoo ñeel ko moom aji tëqoo jooju alquran yowmal qiyaamati yàlla dana ko may ca bisab yowmal qiyaam ga bil ci ay mbégte wa xibtaat yi ak may yoo xam ne dañ ko cee ñee al xibtaat mooy loo xam ne ay may lu ko yàlla di jox yoo xam ne mboolem nit ñi dañ ko ci ñee ne ne ku tëqoog alquran nag fii ci adduna tëqoog moom di ko sellal comme ni ko alquran digle laa yamusuhu ilal mutahharuun kenn du ko laal lu mooy ñu laab ñi nee na ñu laab ñoo ñee nag tëqoog alquran boole ci di ko sellal di ko jàng ay mbégte waaye ak ay may yu ñu leen cee ñee mu ne waman yu laasimu képp koo xam ne dana tëqoog moom dana sax dàq taqoog moom yet lu di ko jàng daxoona waaye nag usqatuhu di ko saxal jàng ga ma at tadaburi ànd ko settan nee na yasfar dana tuufu bi sanniyaati ca may yu kawe ya ay sëñ tuwaa sëñ tuwaa mu alxuraan waaw parce que mënu ko ñàkk bëgg parce que yàllaa ko yàllaa ko ko jox ma lëkkanil quraan alxuraan diirub jamono di ko jàng waaye nag xalaat njàng waxu nga jàng ko tey suba tëb tëb suba wala nga jàng ko tey jàng ko ba nit ñi jàpp ne yaa ngi ci alxuraan nga bàyyi ko dappee kooku mooy lu bon lu xaram kooku moom ci gotte ko rek ci ngay dëkk mu ne ku takku alxuraan di ko jàng diirub jamono waaye sax ca jàng ka nag jàng ko baax na lool loo gis jàng ko am baax na lool ba ci xasiida yi tey jàng ko baax na lool waaye loo gis settantal max naa ya dafa ëpp solo ndax bu fekkee dañ na la amrun la ak wanax yun muy digle ak tere léegi loo bëggoon def ci lu bon booy jàng alxuraan di gis laay yi nu ñuy xuppee ak nu ñuy dëlee kon na xam fooy teg sa tànk bu dee ku yeew nga afalaa yatadabbaru afalaa yatadabbaruuna alquraan am ala quluub yàlla neen santalul alxuraan amma kaste seen xol yi afalaa afalaa yatadabbaruuna law kaana xayran kasiiran da ngeen seetaan alxuraan ji bu fekkoon ne baykoo ne ci kuroon ci fekk ay ixtilaaf yu bëri waaye lam bay ko moo moo tax amut ixtilaaf amutee lépp kenn mën koo dindi mu ne ma képp koo xam ne lu taxoog moom wa men moom soppeem mbaa nga xam ne nee na dem na ba mujjig jamono sëñ Tuubaa maanaam duraan lekk duraan naan nee na gisuma lan mbir moom muy aji baan complètement waxtu yi ngay dund ci àddina nga bàyyi alxuraan tong ko ba noppi nag beru ni nit ni muy mere di ko tong bu ko rombee ko nuyu tabarkalla yow da nga def noonu alxuraan jéem nga wëli ci waxtu yu nga ama ko bon ci àddina mel ni ku ko beru teng tong ko nangatoo ko faale nanga koo jàng na koo koy jéng ba noppi beru bañ a jàng alxuraan ne na fa innaxoo kooke saddoxoo gaar na ko ku kusurus rasilaat yi bëri ay ñaawteef nee na kook de lu ko njëkk a gaar mooy ñaawteef yu bari bari bari bari léegi nag ñaawteef yooyu dana ci juróom-ñaar juróom-ñaar ñaawteef yoo xam ne dana dox ci diggante nit ki ba tax du mën a jàng alxuraan ku dul jàng alxuraan am na juróom-ñaar yoo xam ne moo lay dal ba tax doo mën a jàng alxuraan Allahu akbar te bu tegee sa kaw maanaam yu diis lay nekk te ay bàkkaar lay nekk moo tax mu ne waman yemil képp ko xam ne jénga an walis alquran fil awqaati ci waxtu muy dund ci adduna moo tax si ko bañ ko jàng fa innahu kookee bu ko yëgee ak bu ko yëgul saddoxoo gaar na ko kusuru rasilaat bëri ay ñaawteef rasilaat yi mooy mboolem fu mën a dem rek du fa am lu mu bëgg buy jaamu yàlla te jàngut alxuraan dëddu alxuraan mooy suñ borom day doxale baarax digganteem ak moom bu doon jaamu yàlla ay junni at du tax mu yegg fenn nii bii mu toog sax du ko romb lu ko waral mooy resilaat yi mooy xaqabaat yi dox digganteem ak yàlla parce que yooyu bala mu koo mën a dog fokk muy jàng alxuraan kon de nit ñi seen baaraas yi xam naa bëri na yu dox seen diggante ak yàlla suñ tubaa nee ne de képp koo xam ne beru na alxuraan ci waxtu yu mu ama ko bon fii ci na bañ koo jàng nee na kookee bëri na ay ñaawteef ñaawteef yi nag mooy ay baaraas lay yàlla di doxale digganteem ak ak yàlla day jël baaraas doxale ko digganteem ak moom ba du yegg ci yàlla du ci yonent bi nee na ba tey xat sa doxoo gaar na ko xaañ hu wëllis ko moom kooki dëddu alxuraan dañ ko jàng as yaa un ay yëf ay mbir yoo xam ne toandu des na leen lim ñoom mbir yooyu ila sab in rasa il ñi toll ci jëm ci juróom-ñaari arasa il muy ay ñaawteef aafaatin ak ay gàkk-gàkk dëci saatin ak woru muy pexem bakkan mooy dëci sa dëci sa bu ñu ko waxee rek mooy koo xam ne tabarika la dafa topp bakkanam bakkanam mën na ko alak waaw loolu mooy de ndesiisaat mu ne ko ki nga xam ne dafa bàyyi alxuraan bañ ko jàng dëdd ko nee ne am na juróom-ñaari rasail yoo xam ne moo dox digganteem ba tax du mën a jàng alxuraan juróom ñaari yooyu nag li tax mu mën a ko ba denc ci juróom ñaari li nga ko ca mooy fokkara mu ngoy ci alxuraan bu fekkee ngoy ci alxuraan mu ne la woon na juróom-ñaar yi mu ngi ci yow te suba lay ñëw leeralal la juróom-ñaar incha allah ndax xasee gi daa mel ni sax suba lay jeex. kon nag mu ne xasadahu gaar na ko moom ku dëdd alxuraan bañ ko jàng xanuhu walis ko asiyaun ay yëf yoo xam ne dañ leen di compter toadu des na leen lim ila sa rasa il yi ñu jëm ci toll ci juróom-ñaari arasa il te mooy ak ñaateef avaat ne ay gàkk-gàkk lay nekk ci biir xolam da ci saatin ak woro da ci saatin mooy ak woro muy pexe bakkan lii rek tabarika muy bakkanam moo koy sànk ji rek tabarika la yàlla na yàlla dafa dégg